mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak euh, Fatou Blondin Diop euh, madame Ndiaye euh, di nag ko coordonnateur bu aar li ñu bokk moo gi mari Sagna ci fàttali ñoom ñoo jiite kon kuréel boobu doon xeex nag ci wàllum pétrole beeg gaz bi madame Blondin Diop maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Ahmed Aïdara d'abord di jubbaliwaat tur beeg madame beeg yooyu Ndeye Fatou Ndiaye madam Diop Blondin Euh, di la remercier ci invitation bi di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy déglu di ñaan yàlla ñu dugg ci émission beeg jàmm ak salaam ngeen ci jàmm ak salaam. d' balaa ñu commencé woon nag ci wàllum pétrole beeg gaz bi nga xam ne moom moo waral nag ngeen def seen kuréel gi ñu ñëw ci yoo xam ne moom moo fi mujjee am. gis nañu nag euh, barki démb inauguration euh, pose première pierre estatu Diamniadio bi. Euh, nan ngeen ko gisee xanaa bi yoon di ngeen apprécier la. ah euh, dafa fekk ne bi ñuy def euh, pose première pierre bi mhm. bés bi ko jiitu mhm. ca conseil des ministres mhm. journaux yi taskatu xabaar yépp dañu ñëw ne président de nee na yàq bi bari na day wàññi oto yi ay parce que ay milliards lañ ciy dugal te loolu yàq la def ciy jóg ah le le ñu gis inauguration bi ñu gis oto ya fa nekk yëpp xanaa mu war a xam oto yi ak yàq xaalis bi lan lay jëriñ euh, responsable politique yi yi nga xam ne moom la jël pratiquement suñu administration yëpp euh, obligé leen ñu nekk ay responsable politique ñooñu dañuy soxla oto gis nañ ci élection yi euh, directeur post ay vidéo wane parc automobile poste yëpp nekk di campagne Thiès loolu lay auto yi di jëriñ te ñooñu daf leen di yokkal ñu gën a am place ci ci wetam ah ñu teg ci tamit ne Macky Sall jaar na fu nekk jaar na directeur de société jaar na ministre jaar na premier ministre jaar na assemblée nationale teg ci depuis 2012 ba léegi mi ngi nekk président lu tax mu xëy suba tey jii di wax ñu war ko gëm ndax koo xoon gestion sobre et vertueuse 2012 defe naa ne mbirum oto yi bokkoon na ci gestion sobre et vertueuse wante bu fekkee ne entre temps nga nomme ay ministre yu baree baree bari te waroon ko wàññi nommé ay agence te waroon ko wàññi nommé ay ambassadeur itinérant ay conseillers. Ah, agence yi kat ah agence yi déedéet da sax sénégalais yi am ci ñoo xam ne. déedéet déedéet konteel am na ay père de loolu wax ji du loolu ñu wax ay affaire per de famille. parce que père de famille bi mënul compter ne moom dafay am cabinet ak 2 millions te bu demee hôpital du faju du am tali doomam du jàng dëkkuwaayam du sell du set mu am ko pendant deux ans delluwaat fu mu nekkoon kooku dañ leen di wax ne que boo leen di réfléchir noonu mooy rek euh, ki nga xam ne dañ ko yóbbu meeting jox ko 2000 mu ñibbiwaat këram euh, kooku daal gis-gis bu gàtt la ci defar réew donc moom mi nag jiite Sénégal moom waroon na xam ne nu muy diriger nu muy gouverner ak élection yi fi jaar yëpp li ñu gis ci moyen li ñu gis ci 4-4 li ñu gis ci lépp ci budget Sénégal la ko jëlee. donc bu buggee wàññi moom mooy wone wàññi su ko defee mu mën a wax ñeneen ñi ñu wàññi. waaw mais opposition bi tam yenn saa yi est-ce que tam nit ñi tam duñ ne eh, yéen kenn xamul li ñu li ñu bëgg ñoo ngeen ci wàllum société civile bi Macky Sall bu sakkanalee téléphone euh, ndox euh, courant oto yi mu nee nañ leen def sakkanal wàññiwaat ngeen kaas te te bu bàyyee noonu